السلام عليكم ورحمة الله mbokki jullit yi mbokki Sénégal mbokki àdduna ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam ci fépp fu mu nekk di fas yéene yëkkati ay kàddu yu yu néew rek ci kuutalal suñu kilifa suñu mag Cheikh Ibrahim Mamoun mi nga xam ne kenn amut sikk ci kim doon nga xam ne mooy taawu Serigne Mamoun Niass di xalifaam mat ko xalifa mat ko kuutal yàlla def mu nekkoon ci tukki euh, tukkeem jeexagul waaye mu jox ñu ndigal ne nañ taxawee bés bi gannaawam wax ñu liñ war a def ak niñ ko war a defee yëpp ñu ak ay ñaan alhamdulillahi rabbil alamina ñu dugg ci ak bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi laa alamina muy bésu démb ziara cheikh mouhamadul mamoun ibrahim Niass fii ci Medina Baye kàddu yi may yëkkati nag du dara lu dul wax tuuti rek ci lan moo waral ñuy ziara cheikh mouhamadul mamoun ziara bi nga xam ni amaloon nañ ko waaye bëgg mottali dara ci kàddu yi nga xam ne démb rëcc na te àgguma ci mooy ñi yelloo ñu gërëm leen ci bés bi yépp te tudduma leen te dafay jaadu comme ni ko suñ sëriñ Maulana Cheikh ibrahim ñees di waxe nit bu defee li ko war dafa jaadu ñu jaajëfal ko bésu démb bi ku nekk gis na dimension bi mu am rëy gi rëy macha allah waaye ay réussite bi mu àndal wax dëgg yàlla ku gis loolu danga xam ne du jëfi benn nit du jëfi ñaari nit sëriñ Mamoun ci mbaaxam li ci nit ñi wax duma ma ci delsi mënuma wax lu ko ëpp ci tabeem li ci nit ñi wax noonu yaatu gim yaatu woon waaye bëgg gim bëggoon Sénégal bëgg gi mu bëggoon doomi aadama ak respect bi mu ko joxoon dëgg-dëgg buñ ci doon wax ren ba déwén du jeex bésu Serigne Mamou Niass ci Sénégal warta nekk bés bu ordinaire Sénégal yépp dañoo waroon a ànd di fuuglu bésam comme niñ koy defalee ñu bari ci réew mi ndax nit la koo xam ne Sénégal war na ko delloo lu yem noonu ndax nit la ko joxoon léppam Sénégal lim xidma réew mii néew na nit ku ko xidmaal Sénégal bés bi yàlla dimbale nañu ñu réussir ko ci diir bu gàtt lañ ko programmé yàlla defal ñu ci ndam lu réy lim ñu ci defal ndax euh, amut sikk ne moom borom bés bi kontaan na ndax ñun gis nañ loolu ci bés bi yëg nañ loolu ci bés bi ñu ngi ñaan yàlla ci mbaaxam moom yàlla yàlla na xool ci jëmmi borom bés boobu defal jàmm Sénégal ndax jàmmi Sénégal ñun suñ mooy suñu jàmm loolu rek a ñu ñor comme ni ma ko waxee ñi nga xam ne ñoom lañu bokkaloon bés bi euh, di commencé ci ki nga xam ne mooy daj dëpp gi ci ñun muy xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi wax dëgg yàlla euh, keroog bañ demee di jël ci moom ndigal pour taxawal bés bi waxtaanal nañu ci sëriñ Mamoun wax ñu wax yu rafet encouragé ñu emul ci loolu ebal na ay ndaw ñu ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi wax dëgg yàlla te fu mu toll mi ngi ko doon foglu emul ci wu na ak ñun ci bés bi waxtaanal ñu fa waxtaan bu ama am solo cheikh mahamadul bachir dégg ngeen ko démb kàddu yu rafet yi mu wax ku ci mel ni suñ bàyyi siidi arabi ku ci ni euh, maaxi sise na tewal boppam waaye teewal imam hasan imam cheikh tidiane sise Ousmane Cissé ñëwoon na teewal imam Cheikh Tidiane Ali Cissé loolu yëpp dafay wane ne dëkk bi kenn desut ñëpp ñëw nañ góor ñi ndaw ñi jigéen ñi seti bàyyi yu góor yeeg yu jigéen ñi desut kenn doomi bàyyi tax yi desut kenn daal bu ma limee rek danaa jum waaye dinaa taxaw foofu ma fàttaliku aussi ñi nga xam ne ñoo nekkoon parrain yi bés boobu euh, list bu xawoon a yaatu la te li ko waral ñooñu kenn ku nekk ci ñoom da nga am cër ci Cheikh Mouhamadul Mamoun. fekk ñu bëri ñu baax ak fi na ah, daan nañ def lu baax aussi ci ci ci politique ci réew mi waaye dafay amoon ci fayal la sa facture ngénteel la sa doom parce que dañuy bëgg toujours di am le contrôle ci nit ki nga xam ne moom lañ koy defal. waaye moom yàlla def na daf cee indi loo xam ne nii loolu mooy rôlu sëriñ pour raxas terrain bi fexe ba jikko yi mu amee. mu walu ko ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ak mom ci politique di len wax loolu bax di reconnaître même ses adversaires ses qualités suñ défé lu bax mu taxaw oser wax ko bu paré wax lim gëm té lépp lu muy wax ci politique mbaa mu diko dox intérêt Sénégal mo taxaw ci kanamam waaye intérêt personnel nekkalu ko ci won wala di waxal nit lu bax parce que dafa bëgg lu la neex wala dafa la ragal nekkalu ko woon ci ay waxam politiquement parlant ba tax na comme ni ma ko waxee léegi bëri na lum changé ci politique gu Sénégal léegi foo dem bu événement tabaski jotee daanaka jaaykati xari politiciens yi ñoo jeexal seen xari loolu sëriñ Mamoun lañ ko royee muy lu baax bu gàmm jotee politiciens yaa ngi jënd ay nag di ko dugal ci kër yi gàmm wala màggal lu mel noonu ci sëriñ Mamoun lañ ko royee ñu di ko sante yàlla loolu bokkoon ci lim gëm ne lu ñu war a mën a indi ci terrain politique bi la pour raxas jikko yi nga xam ne tubaab bi daf pikir te moom ci boppam soxlawu ko parrain yooyu maa ngi ciy tudd Cheikh Mahamadul Khoreshi teew na démb wax dëgg yàlla waxtaan na fa waxtaan bu rafet ci sëriñ Mamoun soxna Mariama Sarr comme niñ ko waxee moom ci la soxna Awa Guèye dégg nga <coughs> euh, soxna Daadoli euh, euh, député à l'Assemblée nationale la sëriñ Aliou dem ambassadeur bu Sénégal bu Oman nga xam ne doomi Serigne Mamoun la defaru Serigne Mamoun la taxaw na ci bés bi moom it taxawaay bu rafet rafet rafet ebal na mbokkam yëpp njabootam yëpp magam yëpp rakkam yëpp donte seen bopp lañ teewal waaye kenn ku nekk ci ñoom teewal na ko teewal na jëmmam wax dëgg yàlla munuñ koo ñàkk gërëm moom i tamit Euh, Baba Ndiaye président conseil départemental moom itamit wax dëgg yàlla taxaw na ci taxawaay bu rafet Pape Demba bi tey taxaw na ci taxawaay bu rafet Pape Malick Ndour moom it na fi wax Rahma wax dëgg yàlla nit ku baax comme ni ko Ahmed Boucar waxee démb sëñ Mahi sa doom la doomi dëkk bi la lu dëkk bi nekk ñu gis ko ci wax dëgg yàlla bi na ci ñëw ak jëmmam ak délégation ñu ngi koy Abdoulaye Muntaka newoon na sax mom parrain la d'office comme ni ni mu ko mosee doon ndax doomi Serigne Mamoune yëpp ay parrain lañ ci bés bi waaye cër bi comme dañ ko doon cëral politique acteur politique yi ci dëkk bi te ci ñoom la bokk dañ ko wax ne ko da nga am lu xaas moo tax da nga danañ la ca danañ la ci dugal Cheikh Abdoulaye Mountakha taxaw na ci bés bi da nga waxtaan ci démb ci Cheikh Mouhamadul Mansour waxtaan bu rafet met na fi satu Diop euh, moom itamit tubaarkàlla oote na téléphone Ah, mbooloo ñëw nañ teewal ko Serigne Mbuub comme ni ma ko waxee démb yónnee na fi oote na fi délégation am teew nañ fi euh, Mouhamed Bachir Sall ñëw na ak jëmmam bàyyeekoo Fuuta di mairie Dodel nekk goro sëriñ Mamoun ñëw na ci kër ñëw na ci bés bi ànd ak délégation bu am solo Ousmane nowel Dieng ay ndawam ñëw nañ teewal ko wax dëgg yàlla joxe ngantam dafa dafa jàppoon Abdoulaye Xumba Abdoulaye Xumba mi nga xam ne moom dafay revendiquer fu mu toll ne doomi sëriñ Mamoun la ndax loxo sëriñ Mamoun a njëkk tege ci kawam ñaanal ko dugal ko ci politique sëriñ Mamoun ko tette ci politique ko politique toujours fu mu toll loolu lay revendiquer. Euh, yónnee na fi lu am solo yo délégation am ñëw na fi wax dëgg yàlla heure bu nekk mi ngi oote di laajte ndax jàmm a xew ñu ngi koy gërëm bu ci la xaar itamit wax am nañ mention spéciale bi. ku nekk xam na ne ziara Cheikh Mouhamadul Mamoun ji la xaar lañ ko daan defee waaye bi nga xamee ne ren condition yi mayewul ñu defee ko foofu ndax déjà ñoom dañ nekkoon ci ay chantier liggéey courant bi war a dugg dëkk bi place yu bëri ñu xotti ko yoon yi am problème ak nawet bi ñu nekk te ku nekk xam na ne waxtu wi euh, baykat boo ko boo ko jël waxtu woo ko jëlal rek waxtu cher la ci moom ndax ñi ngi ci waxtu tool yi ak yeneen ak yeneen wax dëgg yàlla Euh, ñoom ñu ànd ak ñun ci nangu ñu ñu d'accord ñu defee su ko fii gannaaw boo xamee ne kilifaay dëkk bi sax ñoom yàgg nañ ko ñaan waaye bàyyeewuñ ñu ko ca njëlbeen ba ci mujj gi ñu ngi fii ci Medina bàyyi mobiliser dëkk bi xale yi góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñu ñëw bokk ak ñun bés bi nekk ak ñun ci liggéey bi dajale seen addiye ju ama am solo indi ko nekk bu fekkoon ne foofu lañ koy defee liñ ci war a def yëpp itam dañ koy indi ci dëkk bi fii ñu defee ko fii ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax. ñu ngi gërëm euh, xale yi koñ bi jigéeni koñ bi daayira yi ci koñ bi wax dëgg yàlla euh, am nañ mention spéciale autorité yi nga xam ne ñoo nekk ak ñun ci région de Kaolack gouverneur préfet wax dëgg yàlla ak euh, service yi nga xam ne ñu ngi ci région bi yëpp sans exception commissaire ndax yónni na fi ay éléments ñu ñëw wax dëgg yàlla police taxaw taxawaay bu am solo sécuriser barab bi ak nit ñi dimbale ñu ci organisation bi te ba amuñ ci dara loo xam ne gis nañ ko ci lu ñu naqadi dégguñ kenn ku jàmbat lu ko naqadi euh, ba tey damay dugg ci ñi nga xam ñoo amoon organisation bi directement wax dëgg yàlla ñuy ay doomi sëriñ Maamu ndax nit ñum yaral boppam lañ ñu ne ci di dundee fépp fuñ mën a di bàkkoo na ñun ay doomi sëriñ Mamoun lañ ñun ay Mamoun lañ danaa ci jiital suñu rakk Cheikh Tidiane doomi sëriñ Mamoun Taha Dem doomi Thierno Assane Dem Cheikh Ibrahim Ndiaye doomi sëñ Daara Ousmane Ndiaye eh, Ibrahima Niane dégg nga eh, Mamadou Lamine Mbow oustaz Jibi yow maa ngi ñëw ci yow wax dëgg yàlla Seydi Arab dem bàyyiwuma kenn su ma rek danaa juum waaye ñoom xam nañ seen bopp xam nañ yalla xam na leen yàlla na yàlla faylante ak yéen bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam su ma paree danaa jaar ci doomi sëriñ Maamun yu jigéen yi gàcce ngalaama yéen gaynde fàkk yi wax ngeen ne seen sëriñ ngeen amat affaire waaye du bàyyi ndax futteeku ngeen ci seen lépp lu ngeen am jox ko bés bi fuglu ko ci li nga xam sax ñun la waaye ngeen wutuñu ci danaa jiital seen mag Mariam ma jëm teg ci Fatou mun Mbooja Amina Diagne Khady Fati ma ca biti Yusra Zahra Zeynabu wax dëgg yàlla dégg nga yaay daam fàttewu ma kenn ak seen mbokk yu baax yi feggoog yéen bés bi doomi Seyda Adjali yi dégg danaa ci tudd Seyda ndax boobu ba léegi amuñ jàmm ndax ñoom mamun sen seen mamun. Maamun la ku ko daan seet këram sax boo ko fekkut kër bàyyi si di nga koy fekk ndax ñoom it ñu ngi taxaw nañ ci bés bi taxaw bi nga xam ne lañ ci war taxaw wax dëgg yàlla euh, kontaan nañ na faylante ak yéen su ma paree ñëw ci presse bi ndax bu duutoon ak lu lu fi def rek du waaye da ngeen cee taxaw yéen tamit taxawaay bo xam ne fàttewu leen ne Serigne Mamoun yéen ak am na nu ngeen te am na fu ngeen jaar ak moom wax dëgg yàlla média bi d'une manière générale du ma dugg ci spécifié parce que mën dama généraliser ci oustaz Jibril mi nga ne mom lañ kon wàllu boobu mu def ci liggéey bu mucc ayib wax dëgg yàlla yéen nyana ñu ngi leen di gis kenn ku ci ñu ngi leen di ñaanal ci suñ xol ak ci suñ suñuy suñuy ñaan fuñ bàyyi mu ne bëggoon na fee nekk tudd leen kenn ku nekk ci seen tur ndax mi ngi ba Nigéria waaye yéen a tax mu mel ni mu ngi ci suñ biir dara réeru ko dara rëccut ko moom ak ñeneen ñu dut moom ñi ngi ootee fu nekk ndax dara rëccut leen couverture médiatique bi ngeen ci def am na solo te yaatu na plateau yi ngeen def avant bés bi waxtaanee fàttali nit ñi bés bi fugluloo nit ñi bés bés bi fàttali nit ñi bés bi waaye fàttali nit ñi kan mooy Serigne Mamoune ak lan mooy njëriñi waxtaanee Serigne Mamoune ndax bëri na ñu ci jàngee eh, ci jukkoom yi nga xam ne waxtaanee ngeen ko di ko jàllar bi ci fan yii yëpp bari na ñu bëri ñoo xam ne nii defarowaat nañ ci alhamdulilahi rabil alamin dëgg-dëgg kenn amul seen fay yàlla na yàlla di seen dimbal yàlla na yàlla fay leen bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam eh, vrai que bés bi dañ ko daan amal eh, ci liñ taxawoon mooy chaque année dañ koy def ci bésu juddu Serigne Mamoun muy le 17 juin 17 juin lañ daan bëgg toujours di amal bés bi waaye cette année ci 17 juin dafa fekk mu que ñu nekk ci benn euh, situation bu ñu doon traversé 17 juin dafa fekk mu jege woon benn xaw nañ ko fomm pour ñaari situation une xam dañ ko doon dund benn bi ñi ngi ci situation bi nga xam ne une situation crise sanitaire bi nous bi yëpp di muy Covid. Euh, état bi am ay mesures yum mu am ay xew-xew yum ayé won té ba 17 juin léragul won ci population bi que nit ñi mën nañoo delluwaat ci séni activité pour def ay cérémonie def ay organisation mais aussi mu mu mu mu tomber aussi ñu nekk ci moment de deuil ku nekk xamna na fiñ jaar moment bi ñak Mansour euh, ci février 14 février mu nekk loo xam ne secoué woon na famille bi d'une façon extraordinaire ndax ki ñàkk moo toll noonu ci ñun su fekkutoon ñu am sëriñ ni sëriñ Maamun mu defar ñu bala mu ñoo wan gannaaw liñ ñàkk buñ ko ñàkkee ci façon biñ ko ñàkkee ak lim représenté woon yëpp lim représenté woon yëpp ci biir kër gi kon ni ko noonu ba heure bi sax nekk guñu ay nit pour mën a wax ak ay nit wala di def wala di taxawal donc euh, ñu jàpp ko ñu taxawal ko xaw nañ ko ñàkk def finalement ñu gis ne danañ ko def euh, biñ démé ba japp le 19 mu coïncider encore ak benen programme bo xamné ne suñ kilifa Cheikh ibrahim Mahmoud daf ko am muy ziyara bi sëriñ bu bu sëriñ Mahmoud bu Mali parce que ñun buñ defaan le 17 ñom dañuy def le 19 mu am problème de communication ñoom fommuñ sen boss té bobu sëriñ bi moko warona def mais en même temps daaw sëriñ Mansour avant mu fi jóge daf ko fekk Nigéria ziara bi mu amal ko fa muy le 19 ñoom itamit ndekk jàpp nañ le 19 sëriñ bi programmé war a seet mu muy def pour ñetti ñaari programme yi dajee ci benn bés mu choisir dem ci bu Nigéria bi jox ñu ndigal ñu taxaw taxaw gannaawam waaye ci kaw bi muy jox ndigal moom Baye Mamoun li nekkoon ci xala xalaatam mooy dafay anticiper nañ déplacer date bi moom mu dem def bi mënta ñàkk wat fekk ñu ci bi loolu mo nekkoon programme bi mais en même temps le 19 ju le 19 juillet euh, juillet bi mu coïncider ak ziyara Seydi Ali Cissé Babul Hadara ñu japp ko donc ñaar yooyu mënuñoo amandor ci biir dëkk bi mo waralon ñu repousser wat ko ba le 10 bi ni nga xam ne nañ ne bu rek li ci top moy ñu xaar dewen moo tax ñu def ko ci façon boo xam ne xaw nañ bàkkale lu bëri moo tax sax euh, wàllu communication sax euh, am na lu bëri lu ci des li ko waral mooy temps bi ñu amoon euh, dafa xawoon dafa xawoon gàtt waxtaanee Serigne Mamoun jàpp bés rek la mais daanaka melut ni yenn yenn yi nga xam dañ koy placer ci ay signes si comme si dañuy joxe ay direction wala ay nangam

liggéeyal beneen dëkk bu dul Sénégal bu dee kooku war naa mën a am mérite ñu tuddee ko dara ci réew mi ñu dëkk ñun rawatina doom ju mel ni Serigne Mamoun nga xam ne dundam bi yëpp Sénégal la ko jox fu mu àggoon rek ndami Sénégal àgg fa tuuti rek mën naa ko cee euh, mën naa ko cee wax nga xam ne doy na rek benn exemple te mën naa cee mënoon naa wax fukki exemple wala lu ko ëpp crise bi amoon daar Darfour nga xam ne plus de trente et quelques mi ngi koy durer crise bi agoon na foo xam ne lu ëpp lu bëgg a jege fanweeri at amul benn autorité bu mën a bu ñemee sol sa dàll dugg ci biir xeex bi fi muy amee pour def médiation du ci benn kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci àddina bi di ko dox droit de droit de droit de l'homme ak droit de nangam yooyu yëpp ñu créé nga xam ne waxtaan waxtaanukaay la amul kenn ci ñoom koo xam ne nii osé nga sol sa dàll ne xaaral ma dem doxi jàmm ci ñi parce que ay nit lañ te mérito nañ ko wax ak ñoom ku leen delloosi sëriñ Mamoun bi mu jógee daf ko def te kenn yónniwu ko mais li ci am solo li ma bëgg a wax mooy pour ngeen xam nit ki dimension bi mu amoon ci coobaree boppam la demoon xamoon na ne dana ci am ndam waaye mbum mi daf ko solal réewam ku muy waxat daf lay wax ne président Abdoulaye Wade moo ma yónni ndam li bi mu paree Sénégal lañ décoré Nations Unies ñëw ñëw nañ dakaar pour décorer ko ci média lay wax te ñi may waxal ñi ngi dund ñëw nañ pour décorer si ko parce que xam nañ lim def ndax moo fa dugg bal yi arrêté wax ak ñoom dox jàmm nangu ba nangu dégg nga mooy résolution bi ñu defoon daw xa moo ko dox ba ñaari euh, kuréel yi nangoo toog ca Dawha dégg nga ca Qatar pour autre solution ci guerre boobu nga xam ne mu ngi durer pendant plus de trente et quelques te kenn mënu ci won am solu mom mo régler problème bobu mënon nako koo fi bopam tuddee ko mamoun wala di dox ci turam né man mamoun ma def nangam waye daf né borom Ablaye Wade mi nekkoon président moko yoni Sénégal moko yoni ndam li ci euh, euh, euh, Sénégal la la soloon mi. adina bi yëpp di féliciter Sénégal ci lolu amut reconnaissance sax ci geste bobu Nations Unies ñëw nañ Dakar pour décorer si ko mais lu xew état bi ñoko renvoyer jox ko bëss bo xamné ni bokkut ak bëss bi ko don xaar.

da fay dess ci Sénégal xam kim doon ñom jëriñoo lolu moy mooy de loolu laay wax ci deuxième question bi troisième question bi moy impacter l'œuvre de Serigne Mamoun. œuvre Serigne Mamoun luñ mën a def bam nek influence ci biti rew mi fi lay am fi la am problème mais bo démé ci biti rew Serigne Mamoun modèle la dañ koy jàngalé ci seen école yi. Serigne Mamoun tabax na ay Mamoun tey ñu ngi nekk ay député boo demee Mali boo demee Nigéria moo fexe na ba fi mu nekk nii taalibe bàyyi fu ñu mën a nekk gëm nañ ne dañoo war a servir seen réew ni moom ndax bokkoon na ci lii gërëmloo Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ñoom ñëpp impliqué wu nañ ci politique da nga fa ñoo xam ne deret yi bàyyi lañ ay sëti bàyyi ndax seen yaay yi ay doomi bàyyi lañ bàyyi maye leen ñu dem fu mel ni Mali fu mel ni Niger fu mel ni Nigéria fu mel ni Mauritanie j'en passe soo demee ay deret yi bàyyi tey ay acteurs politiques lañ tey ñi ngi ci seen assemblée yi di défendre idéologie yi nga xam ne fii lañ ko nampee ci Serigne Mamoun wala ci Baye Niass kon kooku modèle la déjà Sénégal lañ am problème te on peut comprendre. wàllu famille bi ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi ciy waxtaan avancé nañ ci trop xam naa balaa yàgg euh, balaa yàgg dana am lo xam presse bi dinañ ko gis ñun ñi ngi organiser wu ci sens bobu nonu euh amna déjà ñu nga xam dañuy jógee bu bitim rew di uy ci di fekk ci di fekk ci réunion yi. di ci waxtaan euh, mais comme ni ma la ko waxee balaa yàgg dina am luñ teg ci loxo presse bi incha allah. loolu dafa dafa am loo xam ne xam nga ñun cette fois yi def lu ñu war rek lañ def ku nekk xam na ne ndeysaan ndéem si yàlla Cheikh Mouhamadul Mansour am na fu mu tegoon président Macky Sall jox ko li mu am ci temps yëpp defal ko lu mën a lu mënalul boppam moom président de la république. te accès bu mu bu wax ko jotee dinaa ko wax je me prépare pour ça donc du ma ci sori léegi waaye li wér mooy gis ngeen édition yi passé yëpp mu nekkoon fi nekkoon gëmoon ne président xaritam la mu xaritoo ak moom daan ko ko tuddee sans intérêt parce que dafa japon na ci moom la bokk te ñi koy ci ñi koy liggéeyal la bokk daan na fexe ba def benn couche couleur boo xam ne ci événement bi pour def ko occasion liggéeyal président de la république motax tax bi comme bi moy première édition bi nga xamné raté nako mom Cheikh Cheikh Mouhamadoul Mansour duñ wéddi liñu war moy ñu def lam daan def parce que dañ koy def en même temps pour njukkal ko mom mom Mansour ci jëf jooju wér na ñu né bu fa nekkoon dana ko def est-ce que président def na liko war c'est pas notre lolu yeen bu ngeen ko amé occasion ngeen laaj ko ñun laaj ngeen ñu liñu war def nañ ko amna tay ñu nga xamné ne wu nañ pour bëgg amé le parti muy lu légitime déjà ci doomu Serigne Mamoun bu nekk du ma bëgg a tudd benn tur yaakaar naa loolu xam ngeen ko loolu amna na et euh, parti bi aussi ñu ngi préparé wu en conséquence dana am ñu ngi waxtaan comme dañuy waxtaan lu ñuy waxtaanee la génnee ko jotagut du ma ci du ma ci du ma ci bëgg ci bëgg sori